damay door ci gërëm bu baax a baax sénégalais yi nga xam ne saa su ne ñu ngi may bind di ma woo di leen jéggalu nag léeg-léeg message yu bëri doo mun a tontu ñëpp wala appel yi bëri doo mun a décrocher ñëpp waaye encouragement yi ngeen ñuy def saa su ne ak conseil yi ngeen ñuy jox diggante barki démb ak tey li ma jot ci ay message y compris sax ci ay journaliste naan ma bul topp lii bul wax lii bul dugg ci lii loolu lépp firndeel benn mbir mooy ñu ñu ngi sant yàlla mooy sénégalais yi yeewu nañu kenn mënatu leen nax te sénégalais yi xam nañu ñun lan mooy suñu xeex te xam nañ ni seen njëriñ dong la di leen dalal xel nag ne xeex bi nga xam ne door nañ ko wallaahi kenn duñu ci détourné kenn mënuñ cee détourné keroog sama xarit sama frère Guy Marius saaña dafa wax wax yu am solo biñ ko nee diw da laa saaga mu ne leen mais ñi ñuy saaga sax ñun on se pour su dul ñoom it seen doom moom nag dafa am grandeur daam man moom damaa xaw a kii ñiy wax nag ni bu loolu weesoo Euh, dañ leen woote pour ñu waxtaan ci lu am a am solo mooy yàlla ci mbaaxam ak sénégalais yu bari li ñuy wax naan suñu ñaanu mag ñi waaye nag suñu ñaanu mag ñi bu feeñee ci meññit ñu toog di seetaan ba ñun niñ ci waroon jëfandikoo jëfandikoo ñu ko ñun mérité mag ñooñu su dee mag ñi ñaan nañu yàlla nangu ñu ne senegaal pétrole feeñ na fi or feeñ na fi zircon feeñ na fi fer feeñ na fi ñu ne ah jën gi bëri na ci géej gi lépp a ngi fi macha allah ñu toog di sàggan di seetaan mennum Macky Sall ak ay ñoñam ñu jël loolu yépp jébaane ko bu boobaa ñun war nañu xoolaat ndax mérité nañu ñaanu mag ñooñ kon ñooñu seen jaan wàcc na waaye nag suñu suñu rôle moo ci des ñun tey enjeu bi ñu andi tey ponk bi ñu bëgg a waxtaan ak waa Sénégal mooy yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem bi mu am ci ñun ak ñeewantam daf ñoo baaxe fële ci Sénégal oriental boru Tambacounda kunda, ñuy wax Falémé muy pratiquement suñu frontière ak réew Mali yalla wërsegal ñu ci lu béré béré béré béré ci alal lu jëm ci li wax fer moy wéñ bi xam nga wéñ dañuy wax pétrole lu béré di wax or lu bëri waye dañuy faté di wéñ bokk na ci lu té économie mondiale tay wéñ wéñ bo xolé ci salle bi rek pratiquement amul lu fi nek ta amul wéñ xoolal trépied bi lii weñ la amul lu fi nekk amul weñ àdduna bi yëpp soxla ko tey Chine rek li muy consommé ci weñ Inde li muy consommé ci weñ Amérique Europe kenn xamul nu mu toll yàlla nag may ñu ci te mayantuwuñu ndax yàlla buy maye day maye ba mu mat sëkk yàlla mayantewuñu dama bugg Sénégalais yi déglu ma yàlla daf daf ñoo daf dafa

ne nangam la toll dafa mat ci lu ñuy wax sept cinquante millions mooy téeméer juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay millions ci ay tonnes ci fer loolu loolu loolu soo ko doon xayma bëri na torop ñu ne loolu li mu toll noonu réew bu amee loolu ñaari possibilité la am imma mu ne li dama koy gas rek genné ko jaayé ko nonu muy minéré bi budé Sénégal lool la fas won def lañ ci mëna am ci alal buñ ko exploiter ba mu jeex moy 33000 milliards de francs CFA 33000 milliards ah fanweer ak ñet ci junni ci ay milliards loo xamné luñu Sénégal wara mëna am la suñ ko exploiter ci lo xamné ne transforme ko dañ ko génne rek jaay ko mu dem déet ëpp na ëpp na fukk déedéet su doon ëpp na ëpp na ëpp na 300 fois le budget du Sénégal actuel léegi ñu ne ñaareelu possibilité bi mooy ñu ne nag léegi comme yàlla may nañu gaz xam nga li nga koy transformer gaz la ak pétrole ñu ne ah Yalla de ci mbaxam dama wax legui ni Yalla du mayantu yalla su lay may day may ba mat réew yu adem yep dañu jek jek yalla may len waaye bi len yalla maye dañu am sen fulak fayda nar ya bu len yalla maye muy Arabie Saoudite muy Qatar muy Dubai, dañu am sen fulla tey sen alal tey ñom mom 100 ci sen gaz ak sen pétrole motax gis nañ lañ ci am barki dembu Norvège bi ko yàlla mayee pétrole dangam nangam dafa am fulla moo tax mu ngi téye 100 pour cent ci alalam moo tax mooy réew bu ëpp indice de développement humain mooy foofu la ñi gën a seen dund gën a ñoŋee ci àdduna foofu la nekk. ni ñuy xaymaa nekkin doomu aadama bu baax fa la gën a baaxee ci yooyu ñuy wax rek les pays scandinaves nun nag balaa may dee ñu naan malédiction malédiction amul de. yalla du la may ba paré di def malédiction parce que malédiction moy lu jóge ci yalla ñàkk fulla ak ñàkk njit yu bax moy suñu problème amuñu benn malédiction kon so amé pétrole am gaz yalla may la ko ak fer bi ñaareelu possibilité moy nga ne du ma ko jël rek jaayee ko noonu dama koy wëlbati parce que pour mu jógee ci mine bi ba nekk fer weñ bi wala inox bi nga gis dafa am nuñ ciy ko ko nga donc damay defar fii ay usine sidérurgique ma Sénégal bu ko 88 dollars bu doon dama ko jël rek jaay mën ko à 700 dollars ci marché bi donc liñ 157 000.

lan la ci Macky Sall def fi mu toll nii loolu lañ leen bëgg a faram-fàcceel Macky Sall bi ñu yàlla ba noppi ci wàll ci version wolof bi mun naa tëb historique bi yëpp fi ñu jaar njëkkoon ko jox ay sud africain nangu ko ci ñoom ñu dem porter plainte ga ñu ne nañ leen fay 400 milliards Sénégal di ko fay président Blanc joxaat ko. NJ indien euh, euh, yi ñooñu def ñu li war def ñun Sénégal ñu tribunal Paris Paris ne ñun ñoo am dëgg ñu war ñoo fay deux milliards Macky Sall ñëw ne jox la ñu milliards rek doy ma sëkk waaw soixante milliards rek ñun bëgguñu dara comme Sénégal dañoo ni bëgguñu dara ba ñu ñëwaat Macky Sall ne da koy jox ben société wu Turquie butu du Tosyali yalla nak mayna na ñu ñuy dem parce que lañuy def dañ koy neub fi mu toll nii bi ñu ni sax man bima ma amna wax am naa convention beeg nangam nangam dégg na coow ga jeex ñu nan ku koy jox ak fu muy jëlee biñu ñu document bi dama tëju xol ko parce que man sama carrière inspecteur des impôts qui inspecteur des impôts la woon moom it ñoo bokk promotion légui génn na nek enseignant nek expert fiscal ni man sama carrière suñu carrière yëpp di lañu ñu liggéey bi ko jëlee dama tëju xol li lu doon ak lan lay wax waye bima ko liiree ba génne ko goudi googu tëdd naa dama am insomnie dama né Alaaji Macky Sall sañul di xana insomnie la am lan la Macky Sall def Macky le 9 octobre 2018 ñenti wër balaa ñuy balaa ñuy def élection présidentielle xam nga président bu normal bu déssé desee bu ñu demee ba mu ay wër ci élection am yenn contrat yo xamné ne ko signé di engagé réew parce que mën na am do continuer té liñu dalon ci petro lool la.

mu dem faxas Aliou Sall ne ko yow laa def sama gérant société Aliou Sall dem gis mag gi ne ko signal ma kon lay yoon mooy bu desee lu dul ay weer nga war a jeexal sa mandat am na xeetu contrat yoo xam ne waroo ko signé ci réew mi waaye comme suñuy dëgmal élection nag ñoom dañuy soxla koppar ndax seen politique yëpp koppar la ñu may def ba jënd nit ñi moo tax ñu dem signé yu mel nii le 9 octobre ñoom ñoo dem fekki Turquie Euh, Ankara Istanbul ba ñu demee signé diggante ku ñuy wax Fuat Toseri moom moo représenté entreprise Toseri Holding ak ki ñuy wax madame Sophie Gladima nga xam ne moom mooy suñu ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci mine yi ba ñu signé ñu ne lan mooy cëslaayu contrat bi ñu ne contrat bi ñaar la ben moy ñoñu dinañu ñëw am fi Bargny ñu def fi ben usine bo day transformer fer bi ñaaral moy dañ dinañ leen jox suñu suñu fer bi suñu gi ci bi contrat bi ñu ne légui ñaari phase day doon investissement ci day donnent 500 milliards de francs CFA première phase 60 milliards la deuxième phase 450 milliards ñaari Boko Boré, 510 milliards de francs CFA Mom la société Tosiali yi boobu war investir au Sénégal investissement Tout Tout na trop trop trop trop ci li ñu war jox Tosyali yi ci dellu Tout trop beaucoup koy ak. 2006 bi président Ablaye Wade di jox ArcelorMittal Ce qui mu demandé à ArcelorMittal ñu nangu ko 1100 milliards d'ArcelorMittal, ArcelorMittal waroon investir fii mooy deux fois plus deux fois plus waaye yemul ci loolu ArcelorMittal dafa waroon tabax ab raay buy borutamba booru Tambacounda ba Dakar 750 km de rail waaye ci contrat bi Macky Sall signé mooy tabaxal Turquie raay bi barki yàlla ñuy ñoo bon lii boo koy gis sa day jóg bokk na ci Ablaye demande woon turc yooyu ba tey walla indien yooyu mooy euh, ñoom dañu waroon tabax benn port fii boru Dakar boru Sendou port minéral yi ñii nak dañ leen ne Sénégal moo leen def defar moo leen di jox port bi te yéen ñëpp na ngeen xam ni port minéral yi tabax nañ ko ba pare ci financement américain ñoom dañoo ñëw pour ñu installer seen usine sidérurgie dañ leen jox 100 hectares ci wetu port minéral yi mooy ñun ñoo tabax suñu port waaye ñoom ñoo ciy bénéficier wu bokk na ci engagement yi mooy aciérie bi nga xam ne waroon na ko tabax loolu rek nga gis ci contrat bi donc investissement bi tuuti na trop Sénégal dafay dañuy caaxaan pour investissement 510 milliards lan la Sénégal di jox Turquie loolu la leen di fara fàcceel ci lu gatt. bu bi moy nee nañu Turquie gouvernement Sénégal dina leen jox benn yoon bo xamné ñom rek ko mom liñu wax couloir vert ñom waruñoo tardé waruñoo taxaw suñu ñëwee dañoo war a mën a dédouaner rapidement dañ leen di defaral benn couloir boo xam ne ñoom rek ko moom beneen entreprise amu ci droit beneen sénégalais amu ci droit ñaareel bi ñu ne dinañ leen may dinañu toog fukki at ci Sénégal fukki at yoo xam ne duñu fay fukki dërëm ci ci ci lempo fukki at Turquie dañ ko fi toog di exploiter suñu fer di génne di jaay di am ay milliards te duñu fay fukki dërëm ci l'impôt ci Sénégal te ma fàttali ni amul benn benn texte de loi ci Sénégal bu may ñu mun a exonérer euh, benn entreprise fukki at euh, yemul ci loolu du ci impo impôt yëpp la impôt sur les sociétés ak euh, taxe sur l' activité professionnelle yëpp lañ leen exonéré